di leen fàttali leen ñoo ngi fii ci Touba ci daara sunu sëriñ sëriñ Amdi Sarr euh, ñu toog ak moom nii ak mbokki dong yi waaye itam ñu toog ak kenn ci jëwriñu daara ji di sëriñ Amar Seck euh, général ñu fas yéene euh, jàllale ak yëgal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bis bu mag boo xamee ne sëriñ Amdi Sarr daana ko amal fii ci daara ji fii ci Touba defe naa bi ko tàmbalee léegi léegi mu jege fukki at wala mu mat ko ah, bis boobu nag muy tarib alxuraan boo xamee ne eh, saa su nekk su gonee amee dongo yi fi mokkal rek day taxawal bis boobu yi ren nag sun boom def ci tawféex am ci gone yu takk yoo xam ne mokkale nañ fi alxuraan ñu fas yéene jàpp bis bi nag ci 23 bii ñu nekk ci weer wi di alxames bii di ñëw ñu fas yéene ko def fii ci Touba Mbal ñu koy yëgal nag mbokki jullit yi ak mbokki taalib yëpp. waaye itam di ko yëgal mboolem sëriñ daara yi ne ci dëkk bi yëpp ak mboolem ku nekk fa foo mën a nekk te am yéene ñëw ñu ngi lay woo ci bis bi waaye itam di ci woo mm, dëkkandoo yi nga xamee ne saa bis bi ñëwee mboolem loo xam ne daana ko yittewoo ci bis bi ñoom itam danañ ñu ko jàppanal lool ñu ngi leen ci gën a soññ ñoom itam di leen ci woo bu baax a baax ñi fàttali ne bis bi te ren sëñ Amdi Sarr mi ngi ko duppee kenn ci jàmbaari Serigne Touba yi waaye itam di kenn ci jàmbaari se Cheikh Mamadou Fadal di sëriñ Moussa Falilou di sëriñ Modou Bousso Dieng moom la sëñ am di duppee bis bi ren waaye ñuy yëgal mbooleem dongo boo xam ne mas naa jaar ci daara ji donte ñaari fan nga fi am ñu ngi lay woo ci bis bii di xam ne suñu bis la ñu ngi ci woo mbokki julli yëpp mbokki dëkkandoo yëpp mbokki sëñ daara yëpp am na jàmm yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di ñaan suñu boom fekk nañ ko jàmm bis bi 23 la ci weer wi ñu nekk eh, di alxames biir di ñëw fii ci Touba Mbal mbal yaakaar naa ñu bari miin nañ ko ku ku laajte euh, guy siyaar rek boo ñëwee danga janoo ak barab bi fi koy defee. bis boo xam ne bu suñu am di saar mii baaxoo def euh, ci gone yi xam ne ñooy jaar ci daara ji ku ci mokkal alxuraan wala ñi ci mokkal alxuraan suñ demee ba say seen alxuraan mu seetlu lool ba mel na mu war a mel ndax ni def mokkal alxuraan ba déwén te bokk ci boobu waaye su suñ demee ba alxuraanam mu saytu ko. woo mbooleem koo xam ni euh, jàmbaar nga ci alxuraan fii ci Tuubaa ñëpp ñëw déglu ñooñu ba nangu seen alxuraan euh, ñu wutal leen bis boo xam ne bu ñu ci accès euh, da leen di teral ñu dajale woo waajur yi woo mbokk yi ñëpp toog ñu tari alxuraan ñu xam ne ñii mokkal nañ ñu teral leen loolu nag mu koy taxawal ay at ba loolu moo lëkkale nag mbooloo mi xam ne ñoo fi jugee mooy ñoo fi jàng ba bàyyi ba bàyyi ko fi muy ku mel ne ñun ak suñu muur bi doon wax ak suñu Malick ak mboolem bari nañ di mboolem góor ak mboolem soxna ñoo xam ni fi lañ jànge ba xëy bàyyi ñoo ñoo àndoonaat nekkaat ab daayira boo xam ne daayira boobu dañ ko dañ ko toftal ci ginnaaw suñu am di saar mii di ànd ak moom liggéey boobu ndax ñëpp xam nañ ne moom kenn defalu ko dara yàgg naa ko wax ndax alxuraan moom képp ku nekk tubaa fu ko waaye mën a jàngalee wér na lool waaye ki nekk tubaa ndax ñëpp xam nañu ne alxuraan moom mooy borom Tuubaa ko moom kon ku nekk ci dëkkam bii foo ko nekk di ko jàng sax suñu Tuubaa jàngaleel ak fu ma doon waaye ku nekk ci dëkkam bi di ko jàngal dafa dafa ëpp tawféex ndax moom loolu lu mu bëggoon la yàlla dogal nag moo nekk ci dëkkam bii ndawam gépp mu jeexal ko ci alxuraan gannaaw moom jàngee alxuraan ba pare ba mokkal ko amul jaaru ci métier jaaru ci dara alxuraan la def muy métier am di ko jàngale ba waxtu yu mu toll ba ñun ñi ñëpp ak suñu murid bi doon wax ñëpp kenn ku ne fi nga jàng alxuraan ba ba bàyyi ba kenn ku ne tey yaa ngi say soxna ba am sa doom kon kon moom ko xam ne yàgg na ci kon kon loolu tawféex la joo xam suñu Tuubaa ko defal moom mi mu koy defal nag moom mi defal moom mi ko defal loolu nag moo koy yoral boppam moo koy dimbali boppam waaye da ñun lañ ca mën a xam ne tawféex ji ñu am ci moom la ci moom la bàyyi koo ginnaaw jëmi suñu Tuubaa ji moo ñu delluwaat nekkum mbooloo ànd ak moom liggéey boobu loolu moo waral mbooloo mi waat mooy ñi fi ñi fi bàyyi koo euh, sampub daayira di fi daje di di waxtaan sottante xaat ba bis bii ñu jëm nag ñu war cee taxaw taxawaay boo xam ne ñun euh, suñu sañoon damay wax ne suñ am di la ko war ci ñun def na ko ñun ñoo des ndax la ko war ci ñun mooy ne ñu baax ba xëy nañu bàyyil loolu kan nag tawfeex jooju moom moom sottal na ko kon ñun la desee mooy lépp lu mu yëkkatee jëme ko ci alxuraan ñun la war kon mbo soññe bi dama koy jooyle ci ñun ñi xam ne ñu fi bàyyi ko woon kenn ku ne na xam ne fa foo mën a nekk tey déglu kàddu gii yaa xam ci réew mi nga nekk yaa xam ci bitim réew fu mu mën doon te déglu kàddu yi nga xam ne bis bi yow la war la ca war lépp nga def ko mooy weesuwul ne ñi fi mokkale alxuraan ñu teral leen dafa leen ab tari toggee ay bernde eh, dafa eh, dafa ay xéwal yu am solo ñëpp mbooloo Tuubaa ñu eh, kilifa yi bari dajaloo dajaloo fi ñu ñu ñu teral gano yooyu ñu jàng alxuraan loolu nag ñëpp la war yaa xam ku fi jàng fi jàngiwul waaye ñi fi jàng dañ ci raw ah, di kon ñu ngi ci soññ ñëpp di ci góor di ci soññ jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu ngi ci ñëpp di ci soññ waa réew mi ak bitim réew képp koo xam ne alxuraan ñor na la daal bis boobu ñu ngi ci soñ ñi bis boobu nag alxames bi ñu jëm la tey la gaaw alxames bi ñu jëm la fii ci Touba Mbal ci daara Sëriñ Amdi Sarr ah, kon nag ah, kaddu gi xam naa ne Sëriñ Moussa li ma na sëkk rek waa dañ ci barkeeloo loolu rek di ñaan Sëriñ Amdi mu yàgg fi loolu te wér ah, xam nañ ne nag dinañ joxe ay numéro yoo xam ne mbooleem koo xam ne bëgg ngaa jàpp ci liggéey boobu ci liggéey bu alxuraan jooju boo ko jaaralee foofu dana agsi incha allah rabbi ndax alxuraan alxuraan ñëpp la kenn moomu ko ñëpp la waaw alxuraan ñëpp la alxuraan képp ku di jullit ak sa alxuraan Euh, kon liñ cey def rek yow lañ koy defal kon la kenn koy jàpp loola kenn ku ne mën naa nekk fa mu nekk diglu kàddu gi addiyam dugg ci liggéey booba lañ fay def ci bis ba di aw yu fekk la fa nga ne ndax léegi kat daa mel ne sëriñ bi yombal na lépp ci ay tawféex waaw ndax sëriñ bi moom bam ba mu jëlee alxuraan teral ko ba moom alxuraan it da koo bàyyi waate ñëpp ñu mën cee jariñu foo loolu tax ma ne alxuraan alxuraan ñëpp la ba alxuraan ba ba sëriñ bi ñëwagul euh, ba ba sëriñ bi wàcc ba wàccee ci moom ab diir alxuraan rafle woon na lool ñu koy taaxuraaneeg lu ne ñu dugal ko ji bi sëriñ bi ñëwee moo tatagal alxuraan yëkkati waat ko ba alxuraan seede ko ne ko dinaa yëkkati képp ku la bëgg dettal képp ku la bañ ñu ah, am moom kenn ñëpp xam nañ ko ci ngor ñëpp xam nañ ko ci maye mu jël alxuraan bàyyiwaat ko ñëpp moo tax ñu alxuraan alxuraan ñëpp la waaye ba ko borom Tuubaa moomee da ko bàyyiwaat ak ñëpp loola waral nag képp fa mën a nekk te dégg kaddu gii fa nga nekk man ngaa bokk ci yiw woowu bis boobu muy numéro yi fi nekk ndax Eh, ndax am mbir moom damay wax ne comme sàngara gii ñuy naan fukk yu koy fukk ba ci fukk am nañ ci bàkkaar ka koy jënd ak ka koy nal ak ka koy jaay ak ka koy ñëpp am na ci bàkkaar asamaa ko alxuraan kon toog fa toog dégg kàddu gi nga xam ne ñii yàlla la ñuy liggéeyal képp nga yëkk sa addi joxe ko rek bokk nga ci woowa kon numéro yooyu dañu ko jàllalee eh, ñu ngi soñ ñëpp nag di tub baax te jégalu di ñaalal sëñ am di mu yàgg fi lool te wér ci barke Cheikh Ibrahima Fall ah lii mbokk yi daara ji wax nag daanaka mooy benn wax bi rek daara ji moom nekk dañ fee fas yéene nekk di liggéeyal suñu borom rek ak boroom dëkk bi te ñaan mu yàgg lool nag yàgg lool daara ji euh, dañuy def euh, sa at mu jot bu yàlla dogalee suñu borom def nañu ay ay tuut tànk yoo xam ne dañoo mokkal alxuraan ah ñu woote ab bis teral leen ndax teraanga jooju day loo xam ne dafa war ndax ndegam ñi nga xam ne yënguñ ci alxuraan ñooy def yu mel rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñun ñoo nekk ci téere bi ah comme ni ko mbokk yi waxee nag euh, jàpp naa ne bii ñu jëm ni mooy juróom-ñetteelu édition ci biñ ko tàmbalee amal ak léegi. waaye nag lu jaagi ne lu lu ko jiitu woon booba daar jit ñu ngi fi daan mokkale waaye nag jëmmi taxawal maam ah, yii ah, boobaa léegi ci juróom-ñetti at lay toll waaye teewul moom la ko jiitu woon ci ginnaaw it booba ay nit am nañu fi daan mokkale booba nag xam naa dañ daan kii noonu rek waaye taw daw ñu taxawal ñu bis bi nee ba xam nag taxawal bis jot na ah ndax ah, ginnaaw lu ne lañ koy wane ca wane ba wane jeex wane alxuraan bi moo moo moo ëpp moo ëpp solo lépp ci lañ nag ne amul xalaat ne léegi saa yu ñu amatee ay ñu mokkal alxuraan ci daara ji dañ leen defal ab bis bis bi comme ni ko suñu Omar waxee moo euh, li ci jiitu mooy dañuy euh, buñ demee ba xam ne xale yi kat mokkal nañ seen mokkal daara ji daara ji ko njëkk a seet bu ko daara ji seetee ba am ci yaakaar bañ nem bañ xam ne lii kat maam euh, mokk gi baax na ci la ñuy woo suñ moroomi sëriñ daara wax leen ko ñu ñëw digluwaat xale yi ñoom it ah mokkal gi foofu lañ koy teg waaye du caagi ne maanaam at mu jot day ñëw rek ñu woote ndaje nangam ak nangam déedéet daara ji ba mu tàmbalee lii ba léegi ah, ay xale yu mokkal mooy tax mu def ko ah ñi sant bu suñ borom bu baax a baax nag ndax depuis bañ ko tàmbali ba léegi a ah, at mu jot ñu suñ borom ah, yokk yokk yokkute gum ñu ciy defal kon nag loolu ñu ngi ko koy sant bu baax a baax a baax comme ni ñu ko wax ci yëgle bi rek. ñu ko jàpp alxames bii di ñëw muy le 23 ca ñaan euh, mboolem jullit bu dégg suñ kàddu ñu la ciy woo euh, moo xam góor nga moo xam jigéen nga ndax alxuraan ñëpp a ko bokk du caagi ne sëriñ daara bi yor daara ji wala donga bi jàng wala woy jur wi jàngul alxuraan ku dib julli rek ci nga bokk ku dib julli rek ci nga bokk kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp di ci euh, séntu ñëpp di ci rafetlu seenum teewaay ak jàpp guñ ci mën a jàppet aw moom it ñu ngi koy sàkku waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah